noo koy waxee mbiifa président assemblée nationale jamono ji xolam a ngi Mbifa foore ndax maire mu mu nekkee en tout cas quotidien moo ko bind maa ngi ak ñaspik une colère maire mu rëy. Euh, euh, léegi boo Mbifa Fore. waaw mais day laar seen man dégguma li nga wax bu baax. buñ la buñ la tëmbajee. Uh-huh. buñ la tëmbajee ci ngay Mbifa Fore donc moom mi moom président assemblée dafay Mbifa Fore ñan ñoo ko tëmbajee. xanaa député yi. yi dul ñëw assemblée nationale. ñoo ko tëmbajee waaw ak ña fay toog di nelaw. ñoom dañoo tibiri bi joo kon. on va nga waxaat ma ki mbii foore ak ñan ñoo ko tëmbajee ba muy mbii fa foore jërë ngeen jëf ay ca pap noo koy waxee mbii fa mbii fa foore xolub Moustapha Niass moom la def jamono ji ndax dañ ko tëmbajee député yi dul ñëw assemblée nationale ñoo ko tibiri bi joo oh, pap ayoo dara waay <laughs> ayoo dara waay pap ayoo dara quoi ayoo dara quoi ayca ayca jërë ngeen jëf noo koy waxee mbii fa foore moom la xulu Moustapha Niass def dañ ko tëmbëjee député yi dul ñëw assemblée nationale ñoo ko tibiri bi joo jeex na kon Pape quotidien mi ngi nii ci gàttal li bëgg a mooy moom jiital assemblée nationale Moustapha Niass jamono ji maire mu rëy la nekkee démb yéenekaay bi nañu benn ministre mu di ministre bi amee promotion des investissements lañ doon wooteel budget jiital assemblée nationale xool gis ne assemblée nationale lu fa nekk ci député matul sax juróom fukk yëf yi metti ko lool dem na sax bay sàkku ci député yi ngir yàlla nañuy ñëw toog ñëpp Moustapha Niass ne bari na ci ñoo xamante ne ji seen coobare bopp la ñu seen kër ñi nga xam ne ñëw nañu 18 heures la ñuy ñëw 18 heures 20 ñu génn assemblée nationale yéen kaay bi ne njiital assemblée nationale loolu la bëgg kon ñu lijjanti ko la tribune xëy ko dëggal tribune nañu kii di Moustapha Niass génne na caravage gi yat bi la génne ñi mu ko fas yéene dóor nag moo di ñi nga xamante ne ñoom ña nga assemblée nationale bu du ñu ñëw baa bu ñu ñëwee dañ fay toog di nelaw loolee Moustapha Niass dana ko lijjanti ak ñoom las xëy yi ci boppam ñoo fay daalul assemblée nationale ndax démb ki nga xamante xamante ne ji moo di ministre promotion euh, investissement bi ñu koy ne moo di njiital na photo bi ci Walfadjri mel ne lu koy firndeel xët mu njëkku yéenekaay bi ma ngoog Moustapha ci digg assemblée nationale euh, boole kook di wax bay joxar bi ab joxañ li yéenekaay bi bëgg a wane foofee moo di marathon budgétaire député yi dañu ko wan ginnaaw loole neexul ki jiite assemblée nationale moom njiital assemblée nationale observateur nee nañu am na lu Macky Sall bëgg ci moom ci suufu yéenekaay bi moom ngeen de gis ne Moustapha Niass mi jiite assemblée nationale ak Moustapha Diakhaté mi jiite groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar kii di euh, Macky Sall dafa sàkku ci ñoom ñu defal ko rapport boo xam ne dañ ko cee defal la xewoon assemblée nationale ba taxoon crise am foofe nañ ko ca leeralal lépp nee na bu ñu bàyyi dara Khalifa Sall bëggut a bàyyi dara enquête moo ñu ko wax mun nañu ko yóbbu géewal wàccal leen di Khalifa Sall ak Macky Sall ndax ci xeex la ñu jëm xalifa Sall maire Dakar moo déclaré kii di Macky Sall ger lu aju ci mbirum mbalit mi nga xam ne dañ ko jëlee woon ci waa entente ka Dakar jox ko waa UCG ba léegi moom la ñuy lijjanti Khalifa Sall nee na bu dee ville bu Dakar seen mbalit ñoo ko war a lijjanti seen bopp beneen bi ci topp muy xam le ne lu aju ci CAR ak ab décret moo ko fi tegoon bu ñu ko fi bëggee jëlee nañ ko jaar ci décret lu ko mooy kon du fi jugee ñu jugee ci ñun dem ci Le Soleil mi xëy dem ci Koungheul journée élevage tey jii la mu di bëccëg gi ñu jagleel wàllu càmm gi yéen kaay bi nañu njiitu réew mi Macky Sall moom euh, moom la ñuy xaar ci diwaanu Koungheul Koungheul gi yëpp taxaw na ngir di ko accueillir observateur nañu bu fa noppee Ila Touba Touba la jëm moom Kor Mariam fay di président de la République Macky Sall jamono ji nganu ñaari fan lay waajal ci diwaanu Touba direct info moom it xëy dem ca Touba leneen la fay waxtaane nee na jamono ji nga xamante ne ji woy politique yi ak ñi bëgg a lijjanti doxinu réew mi ña ngay wutali Touba ndax Touba dafay di des doon barab boo xamante ne ji mëne su koo teggi maanaam mëne su ko jéggi ñu dal pap ci fi nga xamante ne ji moo di l'observateur mi xëy dikk ak ñun ci lu aju ci leetar bu euh, Alpha Condé bind Euh, président de la république bu Sénégal di Macky Sall jëm ci jox ko xalaatam euh, ci xeetu muuraay yooyu mu di voile intégral Alpha Condé ànd na ca mais dafa sàkku sax ci président Macky Sall mu bind projet bi dem yóbbul ko waa CEDEAO en tant que président CEDEAO ngir défendre ko fa ngir daal ñu tere voile intégral ci déndub Afrique bi grand place mel na naan ñu li am démb bu dàkkul léegi tey voile intégral jeex fi ndax benn daam bu muuru woon ca Wakaam muuru ba ne ma laaj voile intégral gars yi dañu ko muuri ba mu ne dungu pap